asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu doy waar lu doy waar daal la ñu xëy daal di koy gis fii ci mbeddu Dakar yi mairie bu dakaar a ko doon wax def na ko maanaam dafa ni woon yenn bërëbu liggéeyukaay yi teguwul woon ci yoon yëpp da koy daal di dindi ndaxte dafa bëgg raxas Dakar yàgg na koo wax ñenn ñi gëmoon ko ñenn ñi gëmuñu ko waaye wet moom gis bokk ci ndaxte bi ñu xëyee ñun ñëpp gis nañ ko nii moo ne de ñi nga xam ne ni ñoo moomoon place yi dañoo jaaxle tiit ak am tiitaangeeg mbetteel lolo tax sax ñen ñaa ngay daanu di yuuxu fi ñu jëm mu metti trop ci ñom waye it mairie bu Dakar da ko waxoon te def na ko ndaxte nee na dafa bëgg a raxas Dakar ñoko ko mu ngi ni pendant ce temps wu ñin ñi ñu ngi yuuxu ñu ngi wax fu ñu jëm ak fan la ñuy liggéeyee ñoom en tout cas ñu ngi continuer di def seen liggéey auto yaa ngi nii di continuer di démolir di yaq liggéey yàq bérébu liggéeyukaay. We are, We